fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul mi bu ñu leen baaxoo àndil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak taw tawfiixam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal tey ñu fas yéene àndil xikma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbali woon démb ci barkeelu ci téereb Sëriñ Tuubaa ba ñuy wax Maxaaliqu Niraan nga xam ne ci wàllu tasawuf la ko way te mm, jukki jukki jukki woon ci ay abyaat yoo xam ne dafay soññee ci wàllu xamlu ak jëfe ngir yàlla ndax ab jullit dafa war a xamlu eh, xam-xam ngir xam li yàlla digle mu koy def ngir yàlla xam li yàlla tareel mu koy bàyyee ngir yàlla ni ma waxee rek Sénégal nag dañoo am aaday lu nekk ñu féetale ko aw askan xam-xam ñu bëgg koo féetale doomi soxna yi wala sëriñ si eh, ñii ñu féetale leen tëgg ñii ñu féetale leen aw ñii ñu féetale leen mm, leneen sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee yooyu la doon dindi xeeti aada yooyu ba tax na dafa dajale woon ñëpp ci euh, alxuraan ak sunna yooyu yëpp sax ay métier la yoo xam ne bu ci nekk baax na waaye nag fi nga xam ñëpp fa fa lañ war dajee moom mooy sàkku xam-xam kooku waruñu ko féetale euh, wenn askan di leen ko bàyyee moo tax euh, day wax ne xam-xam ak jëfe ñaari wuri si gànjar lañ yoo xam ne nii dañuy xëccal jullit bi yiwu àdduna ak alaxira mu ne waaye nag waaye nag ñaari cosaan yooyu muy xam-xam ak jëfee bi ci gën a tedd mooy xam-xam ni mu dikkee ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne fal ilmu wal amalu jawharaani li xayray daarayn islubaani wa ashraful aslayni ilmun quddima kama ata bihi hadisun qad ndax nee jëpp jëf lu baax baax ak lu mu rëy rëy bu tegewut ci xam-xam mi ngi mel ni pënd bu ñu wesaare maanaam du amal njariñ borom loolu itam neex naa dégg neex naa misaalit ndax teykat bu fekkoon da ñëw fàkk rek di tabax sab étage wala sab terrasse te defoo fondement kon a xam na ne du sotti loo xëy tabax bu ngoonee day daanu day toj kon fondement mooy xam-xam tabax mu raase jëm kaw nag mooy jëfee waaye eh, xam-xam lu mu am njariñ it ak borom lu mu ko bari la bari la te jëfewu ko itam mu ngi ko misaal ci mbaam mu saf ay téere kon xam na ne bu safee ay lam saf am na njariñ muy téere xam-xam yi waaye nag du ko mën a jariñoo coonam kese rek la see am moo tax mu ne is kullu amilin bila ilmin yura fa sax yoo saxyuhu mislu habayin nusira xel man xawa xilman walaysa bi bihi fa innahu ximaarun yaxmilu mu ne waaye it bu ngeen di xam-xam it na ngeen ko sàkk ngir jëmmi yàlla rek bu leen ci jublu xëccoo bu leen ci jublu puukare bu leen ci jublu timit di exploiter nit ñi ñu xamut yéen ñi xam bu leen jublu di exploiter ñu xamul bu leen ci jublu it ñu leen di jox ay addee yu ngeen def ci seeni poos nee képp koo xam ne ni yii ma wax moo tax ngay sàkku xam-xam sa xam-xam du la jariñ dara waaye day mabbu sa diine moo tax mu ne taallamul ilma li wajhi illaahi doonal manafasati wa tabaahi laa tax taqsudu istimalatal baraaya lakum wala hawsakum al hadaaya fa man taallama lima qad dukira fa saxyoo fi hadmi diinihi jara kon to Tuubaa sànkul dundu kenn libéré na ñëpp tamit ci ñu wuti xam-xam ñu sàkk ju xam-xam te bañ koo féetale kenn ndax ni mu bëgg taalibe yi mel ko bind na ko te loolu kon na xam ne ni boo jàngut doo ko xam kon nag ni mu bañi taalibe yi mel ko bind na ko te loolu ku jàngut doo ko xam kon nañ góorgóorlu te sàkku ji xam-xam ñoo ngi sant bu baax waa daara Hikmatul Yawmi yi ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi nga xam ne ni ñoo ngi koy fas yéene gën a liggéeyal Serigne Touba yokk ko ci lañ ko doon liggéeyalee muy yaatalal ko jàng ak jàngale ndax lu ko yiteeloon la am na ñu ciy bokk waaye ba léegi ñoo ngi ci soññe itam di ci tàllal loxo ñëpp rawatina groupe WhatsApp yi nga xam ne ni xikma bi dafay xëy di dugg ñoom it ñoo ngi leen di tàllal loxo euh, ku mënta ñëw par kenn nit groupe WhatsApp bu nekk war nañoo mën a daje euh, jàppale ñu ci liggéey bi